waa salaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di nuyu waaw juste di développer rek ci suñu jour bu mag bi suñu star bi nga xamante ni mooy Sadio Mané ci di jëm ci wàllum blessure am beeg fu mu toll ak jamono ji waaw tey moom dëkk bi jaxasoo woon na nit ñi tiitoon nañ ci bu baax a baax a baax waaw mais yàlla def na ci sutura am nañ ci yaakaar bu baax ne dina mën a ba ci mondial bi waaw ndax fu mu ne nii yi ñu ci jot mooy fu mu ne nii moom blessure am bi am nañ ci yaakaar ni samedi moom du mën a bokk dañ koy forfait match samedi bi incha allah mais dina am yeneen résultat yi ñuy xaar pour mën a xool ndax dina mën a passé ba ci coupe du monde bi bu baax am déet mais nañ boole ñaan rek ndax a aadama moom amul lu dul ñaan te Sadio moom xam nañ ni mooy esaaru mooy esaaru équipe bi nañ ko ñaanal yàlla yàlla defal ko jàmm ba mu mën a compétir ak jàmm ñu mën a def coupe du monde bi ñu doon xaar ci moom.